fondation 221 ñoo ñëwoon ci sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides amal fii ziyaara boo xam ne dañ ko doon indil benn conteneur boo xam ne 253 millions de francs CFA la conteneur bi nag ay jumtukaay la def yu jëm ci wàllum kër docteur maanaam matériel médical ñu fas yéene cee jàppale sëriñ bi ngir mu équipé bërëb bu fajokaay bi nga xam ne moo nekk ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi maanaam université bu tubaab bi nga xam ne sëriñ bi moom lay liggéey loolee moo waral fondation 221 ñëw fas yéene ànd ak sëriñ bi ci liggéey boobule ngir lépp loo xam ne moo jëm ci wàllum équipement ñu def ko ci conteneur bi muy équipement bu bees tàq lépp ñu jébal ko sëriñ bi liggéey bi nag ñu ngi ko jébalee sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des mourides ci Touba ci njiital fondation 221 di Moussa Niang ànd kook yeneen kilifa yoo xam ne ci fondation bi lañu nekk ziar bi nag am nay kàddu yoo xam ne jib na fa ñu ànd teewlu ko. maa ngi leen di ziar di euh, ñaanal sëñ Mountakha Mbacké Bassirou mu yàgg fi te maa ngi jiital ci sama nuyoo bi euh, sëñ Cheikh Hakim moom mi nga xam ne nii tey euh, liggéey bi ci lu bari. ci loxoom la jaar ak sëñ Xaadim Mbàkke mii nga xam ne moo taxaw sama wet fondation 221 dafa nekk benn ONG mu nga xam ne nii euh, day dox ci wàllu social ci niñ ko xamee ci suñu njiit ci muy suñu président Moussa Niang nekk États-Unis nekk sa Detroit ñu yëngatu ci wàllu santé maanaam ci wàllu wér-gu-yaram mu nekk benn loo xam ne nii euh, ci loolu la ñuy yëngatu euh, ginnaaw nag bi ñu bi ñu bi ñu ñëwoon ci sëriñ Muntaxa Euh, ak woote bu mag bi nga xam ne nii woote woon na ko mooy université bi nga xam ne tey képp ku di taalibe euh, dëkk ci dëkk bi xam nga ne liggéey université bi ku ñor na ko ndax woote na ci euh, taalibe yëpp kenn ku ci ne def na ci saw doole kenn ku ci ne def na sa ñaq suñu président nag comme ñun dañoo am benn volet boo xam ne volet santé la ci wér-gu-yaram Moussa gannaaw am benn mu gisee boo xam ne nii mu gise woon na ko ak Serigne Mountakha Mbacké sàkk woon ci moom. pour li nga xam ne mooy université bi maanaam euh, district bi nga xam ne ni moo fa war a nekk maanaam district sanitaire bi nga xam ne moo war a nekk ci biir mais université bi Moussa sàkk woon ci sëñ bi pour wax dëgg yàlla lépp loo xam ne nii équipement la maanaam lépp boo lépp loo xam ne jumtukaay boo xam ne ni tey euh, poste euh, district sanitaire boobu da koy soxla Moussa sàkk woon ci sëñ bi pour fondation 221 dugal seen loxo defar ko ba mu mucc ayib gannaaw ba loolu nag. Euh, sëñ bi rafetlu woon ko lool boole ñu woon ak sëñ Cheikh ak kii sëñ Cheikh nag wax dëgg yàlla ak sëriñ Xaadim liggéey ci liggéey bu am solo ñu ànd ko liggéey ci liggéey bu mucc ayib ba tey seen ngeen ko nii conteneur bii nekk suñ ginnaaw nga xam ne ay ay matériel médical yoo xam ne ay consommable ak ay équipement yoo xam ne flambant neuf de dernière génération nga xam ne bu bees pull la mu dëppoog li nga xam ne ni district sanitaire bi nekk ci université bi moom la soxla tey moom lañ fi andi woon nekk euh, ci lim boo xam ne nii toll na ci valeur euh, deux cent cinquante trois tey lool moo waral tey teewaay fond mango waaw waaw ñaar ak juróom fukk ak ñett tey ci lu toll ni euh, ci ay bagages yoo xam ne tey jumtukaayu ci wàllu wér-gu-yaram la fondation deux cent vingt et andi ko Touba andil ko sëñ Mountakha pour pour vraiment équiper district sanitaire bi war a nekk euh, maanaam ci université bi. non lii du suñu jaar bu njëkk fondation 221 comme ni ko ni ko Sénégal yëpp xamee comme niñ ko baaxee di xamee wax naa la ko ci wàllu social lay dox day dox ci éducation day dox ci petite enfance day dox ci comment ci ci ma addiction d'eau ci sociale ci niñ ko gën a xamee ak ci santé maanaam euh, soo xoolee fondation 221 defagum na plus de 7 milliards 500 ci domaine santé Touba du ñëw du bii lañ fi njëkk ñëw fondation 221 andi woon na fi benn conteneur boo xam ne ci 271 millions jaarale ko ci Touba jaarale ko ci Touba sa kanam ñu jébaloon ko Serigne Mountakha àndoon ci ak sëñ Mourou Mamoun bu sëñ Fallou kon tey fondation 221 du lii mooy. guléet muy ñëw fii fii ci Touba ndax ki ko jiite di Moussa Niang taalibe la te dëkk bi moo ko ñor lépp loo xam ne ni tey day day day taaral dëkk bi lépp loo xam ne tey Serigne Mountakha Bassirou Mbacké woote na ko tey Moussa Niang kenn di ko ci jiitu ak fondation deux cent 221 te bii ñëwaat nañ fi te am naa yaakaar ne dinañ fi ñëwaat ay ñëw ñëw yu bare bari lépp loo xam ne daal liggéeyub Touba la liggéeyub Serigne Touba la fondation 221 taxaw na pour dugal ci loxom ba mët sëkk waaw Serigne bi moom tey wax dëgg yàlla dañoo am contentement ndax recevoir nañu donte sax dafa dafa fatu woon waaye xam naa ne mbir mi rëy na ci moom rey goo xam ne am na ci contentement goo xam ne sëñ bi sant na fondation 221 gërëm na fondation 221 te tamit ñaanal nañu ci liggéey bi ñuy def waaw ñaanal nañu ci te yaakaar naa ne ñaan googu incha allah dina baax lool voilà ñaan na ci kontaan na bu baax a baax ñuy ñuy ku ñuy sant sëriñ Xaadim Mbàkke mi nga xam ne wax dëgg yàlla donte suñu sëriñ la waaye waaye waaye ci kër gi la bokk waaye ci kër gi la bokk ba pare ñun aussi sëñ mi am na lu mu bokk ak ñun voilà am na lu mu bokk ak ñun te di wax tamit fondation 221 ñu ngi leen di gërëm timu fondation 221 képp koo xam ne yaa ngi ci fondation 221 sa liggéey ñi ngi koy rafetlu ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm te te di xam ne fondation 221 ONG boo xam ne ab politique la dafay nekk pour askanu Sénégal d'une manière générale pour le monde entier. asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, bokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax yow tey ñu ngi lay jotali am nuyoo bu baax a baax ak waa mi nan yëpp bokk ci ñun mun taxaa Ba mii eh, ñu jàkkaarlool jaaroon ca daara ja ak Sëriñ Muntaxa Njaay mi nga xam ne moo jiite yëf yi te ñu bokkoon nekk ca daara ja wax dëgg mu jàngee ci daara ja ba mokkalee fa ba bind fa la fa bind ci ay kaamil jaar tiib ca daara tërbiye ji ba wàcc soog di sos eh, lii nga xam ne mooy mi Minane léegi nag euh, académie bi nag gii itam mu ko tuddee doonoon loo xam ne lu considéré woon kër gi la ñu koy def fii ci pénc mi muy xeetu waxtaan wu ñu daan def mm, euh, ci lu mel ne koor geek yooyu mu jël moom sitam bi tuddee ko ko benn yoon ba gën naa siiwal turu loola euh, yooyu yëpp daal sant nañ ci bala ñoo ñëw ci li ngay wax ak ñun nag ñi li ñu fi taxatee ak ñun néew na te loolu leeral naa ko sëñ bi liñ naan leen ndax mooy seen siyaar bu njëkk wax dëgg xam naa yàgg nañ di siyaare ànd ak seen président donte seen président fan yi dafa génn président ñaa euh, di mbokk ci kër gi di taalibe ñun ñi sax euh, wax dëgg di suñ mbokk di suñ jarbaat euh, loolu li muy am am itam ñëwoon nañ ci sëñ bi yoon woo xam ne yëg naa ko te boobu fekk miinaguma leen sëñ Mbàkke mii moom doon wax léegi yàgg naa ko miin waaye Moussa boobu miinaguma ko ba mu yàgg am taxawaay bu ñuy taxaw tiib ca teen ba teen boo xam ne Cheikh Mahamadul Bachir moo ko bënn tuddee ko sëriñ Mouhamadou Xabaan sëñ Modou Xabaan taawu sëñ Mandumbe euh, tuddee ko teen ba teen ba yàgg fa lool ñoom ñoo ñëw defaral ñu teen ba defar ko pompe defar ko ay mbànd ci kaw ba mën a xelli comme rëbina te naka jekk ñun teen ba teenu barke lañ ko jàppe woon foofu itam du ndox mu neex moo Tuubaa ñoo yam ca teen ba la waa dëkk bépp di jëfandikoo li ñuy naan ak li ñuy tàngal kafe gi ñu demee waaye man wax dëgg ba ñuy liggéey teen ba sax taxul mu miin leen bu baax ndax jaarewuñu woon ci man waaye jamono yi ñu koy inauguré ànd ak seen président te fekk sama sang bii di eh, sëñ Mbàkke Madina Cissé ñëw moom laa xam tax ci bis boobu laa xamante ak Moussa ak ñam ànduloon ay waajuram ak yu ñu demee eh, booba itam gisee nañoo ak sëñ bi ci sama kanam nag lañ waxee fekk nag sëñ Bas Tiib mañ ko doon àndal ca Tiib ba ñu nuyoo ak sëñ bi moo ne ko. ñii dañ fay ñëwoon am liggéey bu ñu fiy def leeral kooku ne ko waaye xaadim mii xay na mu gën leen a xam ndax euh, seen mbokk la man nag booba sëñ Mbàkke mi laa xam waaye booba laay soog nuyonteeg Moussa Niang mi nga xam ne mooy mooy président bi léegi ci laa ci la ci laa ko nuyooleeg sëñ ba wax ko liñ bokk ci bokk sëñ Bas Tiib wax ko liggéey ba fa doon liggéey ci Tiib euh, Moussa daal di sàkku ci sëñ bi nekko ko liggéey bi ngay liggéey ci université ba dégg naa am na fa passe de santé bu ñu fay liggéey maanaam lu jëm ci wàllu faj loolu nag dañoo bëgg équipement ba mooy mboolem matériel ba nga xam ne mooy dem ci biir daal dañoo bëggoon nga féet lañu ko bàyyee ñu ko sëñ bi daal koy tontu ci sansa ne ko loolu sëñ seex sëñ seexum sëñ Abdou Hakim moo yor liggéey boobu moom laa ko farale moom laa ko féetale sëñ bi itam day xam ne lépp lépp mënu ko yorandee ci loxoom mu partagé ko kenn ko ne mu joxal dara ba mu waxee loolu itam euh, moom mu noppi sëñ bi euh, sëñ bi joxañ ma joxañ ngi ma joxañ mooy li muy tegtale mooy wanale kook sëñ seex moom tey mu noppi néew ko sëñ Cheikh waaye moom moom may wan léegi sëñ Cheikh ndax booba sëñ bi doon ñëw tiib te bis boobu la fi soog ñëw xat lool euh, bis booba nag nemmiku na ma ngir ma boole koog sëñ Cheikh ma ne ko loolu du jafe ndax sëñ Bass mi la fi doon nuyoo leen léegi moog sëñ Cheikh bokk lépp sëñ Bass tiib mi itam moog sëñ ñoo bokk ab liggéey ñoo bokk ab bokk lépp ñoo bokk programme kon ginnaaw noonu la demee euh, loolu du jafe far ci ngoon sëñ Cheikh ak fa fekk ma xaw a am feex tuuti ma koy xamal ne ko moom sëñ moom sëñ Cheikh am sëñ Abdou Akim ma koy xamal ne ko Euh, am na ñu fi ñëwoon di sàkku sëñ bi jox leen euh, lu jëm ci équipement bi ci université ba sëñ bi ne ko liggéey boobu yow yaa ko yor noonu mook koy waxee ni suuti Moussa ak si ànd ak sëñ Modou Mamoun mu mi ab sëriñam loolu itam moom laa doon nettali sëñ bi loolu nag ni ma ciy duggee mooy sama kàddu gi may wax gépp dafa mënta ñàkk yaatu ak leeral ak yaatal waaye kàddu sëriñ Seexum sëriñ Abdul Hakim laa fi yor sëñ Seex euh, dafa liggéey bi daa kawee ci moom ma indi ci ñaari wàll ñaari seere yu mu ci def benn bi mooy wax na ma léegi ne ma booy leeral di jëm ci liggéey bi nang nang ma bokk na ci li ma gën a marqué ci ñoom mooy ba mu sëñ booleek ñoom ci tiib boobu Moussa bañ fa jógee amut samay coordonnées ginnaaw bi itam sax nekkul di coordonné man coordination boo xam damay sonal waaye euh, mbokkum taalib mu nekk foofu ci bitim réew mu nekkal euh, Amérique ku ñuy wax Cheikh Yaaba jóg yaakaar naa la wax Euh, moom la jokkalool ba am samay coordonnées te mu jokkoo man euh, ci ay coono bëriwut ci lu laaj ma li ma war a laaj yi ñu war a wut yëf yi nu mu demee ba mu xam ko ci la wutee lépp toppatoo ko sëñ Cheikh nee na loolu bokk na ci li gën a marqué ci liggéey bi. leneen li itam sëñ Cheikh sax waxloo moomu waaye man maa xam doxin wi ndax sëñ Cheikh tey si suba bi ma woowee ñii wax naa la ne sëñ Mbàkke Madina mii nga xam ne moo jiite ñoom sëñ Iblaat ñii ak ñii mu àndal moo leen jiite fii moom am na am na ñu maa ngi ci kër gi sëñ bi di ma liggéeyloo sëñ Cheikh waaye ñoom booba laa mujjee xam ci liggéey bi dara. loolu tey noonu laa ko waxee sëñ bi waaye man tey suba sëñ Cheikh moom woo ne ma ñi ma sëñ bool loon nga may coordonné ak ñoom booba ba tey maa ngi ak ñoom euh, liggéey ba taxawu nañ ko yëgoon naa ne man yëgoon naa ne agsi na Sénégal waaye sëñ Cheikh dafa mel ne tey la jàppale pour mu agsi pour mu war a ñëw Touba sëñ Cheikh ne nag ñoom ci social la ñuy yëngu te sëñ bi lañ fas yéene liggéeyal te dañuy liggéeyal sëñ bi ngir yàlla. Mm-hmm. waaye liggéey bi kawe na te beneen bi des Euh, ñoom mënoon nañoo ñëw rek indi ko ci man mënoon nañoo ñëw rek indi ko ci man duñ ko may xam naa ne ñoom loolu bañuñ ko waaye nag yàlla daa def euh, comme ab fondation la nag moo tax ma bëgg jëmmi liggéey bi àgg ci sëñ ba sëñ gis ko wala ñu indi liggéey bi àgg ci sëñ ba sëñ bi gis leen waaye yàlla def nag suñu borom. Eh, sëñ Cheikh taxawaayam ak pëstéefam bi ko sëñ bi ko sëñ Muntaxa di xoolee ngir pëstéefam sëñ Basiru pëstéefam sëñ Abdu Hakim ak pëstéefam jëlee loolu ko sëñ bi di xoolee moo waral sëñ bi ñaar ya sëñ Cheikh doon sàkku ñaar ya yëpp la sëñ boole def ko sëñ boole na recevoir doon daa ci fatu jël na dara ci temps julli tisbaar bañ cee gaaw a toftal yi mu ci war a toftal mhm. eh, fexe ba gaaw leen recevoir ñoom ñi yor liggéey bi ba noppi itam génnaat ba ci biti xool liggéey bi jàkkaarloog liggéey bi yéem na ko lool euh, wax na sëñ Cheikh itam ne ko sa chance bokk loolu bokk na ci li ko ci gën a marqué kon moo moo seere si ñoom seere soosu xam leen ne daal ñoom manoon nañ ko andi waaye liggéey bi rëy na te yàlla dool na ab fondation la moo tax kon damaa bëgg liggéey bi comme ci sëñ bi la tàmbalee woon na jaar bi ci sëñ bi ñu soog ko yó ñu ko yóbbul foofa ca daara ja ci liggéey bi ñu ko liggéeyal wa illaa ñoom te it ñu agsi ba siñ sëñ bi sëñ bi xam ne ñoo doon andi liggéey bi loolu rek la kon fa la bëri nañu ay taxawaay nag ñoom euh, sax man li ma leen gis ñi euh, réparé ay teen yoo xam ne dañ ko defal pomp wala bënnal ay nit ab teen looloo taxoon ma jàpp na ci loolu dong la ñuy yëngu waaye ba ma leen laajee ni leen yow yéen lan mooy seen yëngu ñu ni seen baas moom euh, mi ngi ci santé ci sante la ñuy yëngu te gisoon naa naka jekk ci internet bi lu ñu indi Mbàkke loo xam ne walooru ci hôpital Mbàkke loo xam ne walooru quatre cent nangam million la waaw waaw ñeenti téeméer million lii ñu indil tey sëñ bi nag mu war a dem ca liggéeyu université ba mhm. loolu gàttandu sëñ si Hakim la mhm. ndax buñ ko indiwutoon sëñ Cheikh mooy continuer liggéey loolu waaye ñoom liggéeyal sëñ bi rek lañ bëgg te buntu lañ ci bëgg buntu bi mhm. nag am nañ ko ci ndax sëñ Cheikh Hakim a ngi nii ñun tey ñi ngi nii ci biir sëñ bi sëñ bi lañu liggéeyloo Euh, kon valeur bii nga xam ne moom lañ indi moom ngeen jàkkaarloo muy conteneur bi li ci nekk lépp valeur bu deux cent cinquante trois la ñaar téeméeri ak juróom fukk ak ñett valeur woowu la fa tabarakallah jërëjëf amin uyo bi nafsi bi tay in minka ya allah anta